ak nañu koy doxalee ndax tey askanu Sénégal ñooy atte li ëpp ci askanu Sénégal tey da ngay xool bu dara bindee tey benn journal day bind ñu ni tekk di ko xool ndax dëgg la am du dëgg nañ ko vérifier nga toog ba càgg ñu bind dara ñu toog ab diir ñu ne weddiwaat nañ ko loolu day ba day day day wàññi dayoo ci journal boo xam ni réew mi dañ koy bàyyi xel wala boog ñëpp dañu koy bàyyi xel dafa am loo xam ni maanaam nit bu koy def ak nu mu ko mën a defee nag daf cee war a suuraale lu baree baree bari li ko tënk d'abord te Sénégal lépp lu ñuy dugg politique bi moo tax dañ ciy duggaale ak ba mu dem ba jeex tey boo xëyee ñu ne jàpp woon na ñaari taskatu xabaar automatiquement ñëpp la ñuy jël def ko mbirum politique même taskatu xabaar dañ ko def mbirum politique foofu nag la ñuy réere mm-hmm. gis nga taskatu xabaar yi mbir bu xewee nañu toog ñu waxtaan ci seen biir lu xew mm-hmm. lan la lan moo tax ñu lii ak si nangam mais automatiquement dañu koy jël sànni ko mbirum politique mm. daane politique yi tax ñu woo ko fitna nangam nguur gi fi nekkoon nguur gi ak nangam bokkut mbir mi loolu am na kàddu gu jib kàddu gi bi mu jibee tax li gën a doy waar mooy càll mm. ndax yaa ngi bàyyi xel maanaam fi ñu sukkandiku mm. ba tax ñu génnee xibaar bi mbirum général Kandé mi ñoom génn nañ weddi bind boo xam ne ki jiite moo di euh, Afrique Afrique confidentielle automatiquement ki ko jiite moom bind na weddi ko ni ñun misuñoo bind lu mel. mais dafa am ñaar nag ñaari site. Mhm. dafa am Afrique confidentielle. am confidentielle Afrique. Mhm. mu am nag juumte bu am parce que dañu tey dañ ko tuddee Afrique confidentielle te boobu dañ dañ ko tuddee confidentielle Afrique te boobu Afrique confidentielle moo ko bind. Mhm. muy site boo xamee ni man mii journaliste xaw ma fu ñu féete. tey mën naa topp. Euh, Jeune Afrique est-ce que xam nga ni Jeune Afrique jox information wala mu bind ko rek ma ne non dama koy jàllale xamul tax dafa am ñuy fay Jeune pour ñu jàllale information ñëpp xam ko damay liggéey RFI waaye du RFI lu mu wax rek lu nekk laay jël na ni non RFI moo ko wax daf may leer ni lii RFI wax am na source bu bu bu leer ma koy doog mën a jottali ne ni selon RFI France 24 dañuy génn ay images mais ay journalistes yuy dem sur le terrain mën a ñëw ne ni lii moo fa am. ñëw wax ko mën naa leen citer parce que source bu fiable la mais Afrique confidentielle loolu confidentielle Afrique donte benn bi Chérif Aïdara moo ko jiite xaw ma ko waaye mu ngi bitim réew nekkul Sénégal waaye day liggéey ñu koy kii lu tolloog 13 millions d'abonnés nekk ak moom ak ay à travers pratiquement tous les continents mhm. kooku bu waxee mën naa bind ne ni kii bon wax mais dinaa la citer waaye keneen ki wax xaw ma ko lu ma ci goobee gar ko lu mhm. luñ ma ci teg après dama naan man maa tooñ sama bopp mhm. je ne la pas le procès des journalistes mais lii Ablaye Naar wax rek a ci ne mooy ñun tamit ñoo war a lu bari war nañ ko xoolaat ci suñu bopp. Mhm. ba nga xamee ni bu ëllëgee kenn duñu ne nii yéen a defoon wala yéen a waxoon. te Birahim journaliste léegi ñaari pàcc la de yaa ngi koy bàyyi xel. ak journaliste ñaari pàcc la daanaka léegi booy xool Sénégal ñaari pàcc journaliste moo fi nekk journaliste yi maanaam ñi ñuy défendre. Mhm. dafa am ñoo xam ñu ñuy défendre ak ñun du défendre boo xoolee ba ca biir gis nga Birahim kuréel yi mu fi tudd léegi. ñu baree bari ci ay journalistes dañuy toog daal ne ñoom bàyyiwuñ leen xel ndax dañuy nekk ci jafe ñoom lu ñu défendre ndax amaana boole nañ ci fii lañ far wala fee lañ far gi nga euh, méccam tasum xabaar léegi politique bi moo fa dugg ba gañe fi maanaam dama terrain bépp dama nañu moo ko gañe mhm. actuellement parce que dañoo xaaj ñaar ñii far fii ñee far fee ci mën nañ ko mën a tuddee maanaam far mooy amaana am na ñoo xam ne bés bu yàlla sakk ñi ngi défendre wala bokk ñi ngi wax ci nguur gi lu leen gën a ñàkk wala lu baax am na ñoo xam ne bu ñu xëyee ñi ngi wax ci loo xam ne ci nguur gi ay gàttaak la yeneen ñu ko nuru ñoom la tuddee journaliste yoo xam ni maanaam dañuy ñëw pour xeex nguur gi am na ci ñeneen ñoo xam ne dañuy wax lu baax ci nguur gi seen liggéey ñu di ko war wane nangam ñoom lañuy ñuy tuddee ñoo xam ne dañoo far ànd ak nguur gi mu nekk ñaari pàcc yoo xam ni war nañ ko njëkk a lijjanti ba boolewaat ci seen biir ndax féewaloo fu mu am wax dëgg yàlla booloo du fa am te fu booloo amul nag ngir nga dugg dara ba am ci nam day jafe moo tax moo tax ma ne fi mu toll nii nañu fexe ba yaakaar Birahim wax na ko léegi benn journaliste dawul toog wax nga toog nga di ko weddi déedéet ndax ki nekk ci àll lu mu digg rajo naan dëgg la ki nekk ci àll ba toog rajoom la yor moom rajoom li xew Sénégal gépp ci rajoom la yaakaar ni fa koy diglu lépp lu digg ñu wax ko ci rajo après taskatu xabaar wax ko danaan dëgg la da koy jàpp waaye bu fekkente ne nag xëy na toog ñaari fan jàpp ñett saa bu waxee dara ci rajo bi ñu xëy weddiwaat ko ñuy wax ñu weddiwaat lépp nag lu rajo wax ah, xam dëgg la dëgg loolu nag li koy waral mooy ñu baree baree bari liggéeyutul ngir leen tënk ci métier mi waaye dañuy liggéey ngir seen bopp mm-hmm. loolu mooy wax ji est que mën nañ ko jàngatee comme ni ko Baye Ablaye waxee mbirum politique